bisimila daleen ak jam ci chaîne bi ngeen tamul seen bop danaka yene kay yep ci rapport of naka cour des comptes yi nu fessel ganna bu ko président Bassirou Diomaye Faye le nu xey le quotidien ne rapport yooye woné na ay mbir yu doy war journal bi ne ñeen fukki dossier parquet joté nako ci of nak dossier yooye ye ya. ci gëna ragné ko di dossier product yene kay ba ne ay manquement yu doy waar am ci nañu gérer marché ye njital Dakar dem dik ba won journal bi ne dañu ko japp loxo ci poste muy jënd woto buy jar juroom ñetti fukki million ak ñet waral bis bi le jour ne ci Dakar dem dik maître Moussa Diop jëlul won direction solution bu baax ba ci na mu doxalee wota ya loola la rapport ba woné buñ sukkandikoo ci bobu lepp yene kay buy woné ka far ya manam ka ya gëna fess ci ca le rapport yene kay bi ne lañu woné bokku na itam ci mambay ñaa may diri contrat wu green 2000 yene kay bi ne pap malik ndour itam ab ka la ci cour ba ci walu finance ak budget amadou ba moom problème conformité ci walu gestion la am maanaam pok charte yi nu teural jegleel ko yorin of nakit yene kay ba na suli na ay mbot yu garaaw a jëm ci lañuy fajee ña am ñom muy kidda jalisa yene kay ba ne scandale bu doy wara ci am ndax surfacturation yi yéeme yu nu ca def l'info ne cour des comptes kay li mu def mooy génne mbóot ya woon ca placard yéeni cabinet gestion wu a am njeexital bokk na ci woon wutal ndaw ñi xëy yéeni cabinet jafe-jafe yooyu sax fa mu gënee fës mooy diggante Prodac ak Locafrique diggante financement ba ba ca remboursement ba yéeni cabinet lëndëm kurus la def leneen lu ñu def mooy fal président conseil d'orientation te loola bokkutoon li ñu waajal ci Prodac booba jamono jooja yéenekaay bi ne mi ngi rafetlu neen rapport booba ñu fësal te ne mi ngi taxaw di xaar te noppi naa janoog ñépp ñi yàq deram di ay détracteur am moom Pape Malick Ndour ña ko fekkaat ca xët gu njëkku la te mooy yéenekaay bi bokk na ci ñi Cour des joxoñ baaraam tuuma ci mbiram Prodac moom ak tuuma ci mbiram Prodac joxoñ ma jiite au conseil des collectivités territoriales léegi ko ne waaye nañ des Prodac ndax Prodac booba scandale joxoñ baaraam tuuma rapport cour des comptes bi yéene kaay bi ne wone na lu ëpp ñaari milliards ak genn wàll di 2,7 milliards gunu fay lokk Afrique yéene kaay bi ne ñaari dak képp la ñu ci fukk ak benn yi ñu waroon a defar journal ba ne leneen la cour des comptes gis mooy ay liggéeykat yuy signé ca Prodac maanaam dañ leen fay fay di leen it fay ca PDS Prodac mooma journal ba ne canam doon doxee jël na ay wareefu Green 2000 ci wàllu dépense def ko ay dépense yi boppam di génnee xaalis di ca def journal bi ne ñaari avance de démarrage itam joxe nañu ko ngir dak yu Itato ak Sàngalkam te daku booba moom lañ jël toxal ko ca sàngalkam enquête ne loolay verdiku cour bi cour des comptes yéene cabinet moo fësal noonu ay rapportam ci wàllu Prodac gi fi juróon coow bés bi ne gannaaw ba ko coow li toppee ci ay firnde yu mu fësal niki Aliou Sow dib dage tribune ne ñoom ñépp nag lanu leen di toppee la ca gën a fës mooy wàllum escroquerie détournement de deniers publics association de malfaiteurs yooye infraction yéene cabinet cour des comptes a jëlit ñeen fukki dossier jébbal njiitu réew mi ngir mu xam naka la cay def yéenekaay bi nekkoon fi mu ne président Bassirou Diomaye Faye yor cëggal gu yam ci alalu askan weeg ni nu ko saax-saaxee te rapport yi cour des comptes ak a doon def maanaam liñ doon def ci alalu réew mi bi ne moom la nu ca boole woon ca Dakar dem dikk Prodac mairie bu Ndar ca Mansour Faye direction des eaux et chasse et de la conservation des sols yéenekaay bi ne yépp cour des comptes lañ mat na ko waa OFNAC yee yu xeeñ xonnu la ñu gis ay mbóot yu doy waar lañu fa sulli sëriñ Basiru Gëy yéene kaay jël na dossier yëpp jébbal procureur ay infraction yu baree bari it la ngir ñu teg ko ci kaw di ña luubal réew mi quotidien ne luubal yooye ñañu ca tuumaal ba sulli seeni mbóot ña ca gën a fës Mame Mbaye Niang la Abdoulaye Seydou Sow Mansour Faye ak maître Moussa Diop maître Moussa Diop mooma l'observateur ne gestion bu scandaleuse la def ca Dakar dem dikk fësal it njombe yu ni mel ca nañu yoree Prodac yi yéene kaay bi ne PCA bu Azer moom daanaka moo jël raw gàddu gi ndax moom fexe na ba nu fay ko téeméeri million ak ñeen fukk ak juróom ñett yu mu yayoowul yéene kaay bi ne industrie extractive yi itam mbir yu doy waar la fa cour des gis fësal ko ci rapportam libération dëggal ko yeggee ñu mbir yu doy waar yu tukkee ci rapport cour des comptes bi ci dépense personnel yi waaye itam recette minière yeeg nanu ko doxale journal ba ne piage googa nag di càcc gu metti ga gaaye dañoo tëju def ko lijjanti seen bopp ci yu yéeme yéene kaay bi ne ay indemnité yoo mi ngi toll ci yoo xam diggante 2015 ba 2018 journal bi ne am na ci itam ñoo xam ne dañ leen joxoon ay logement administratif maanaam dëkkuwaay yoo xam ne liggéey baa tax ñu jox leen ko ba nuppi ñu wëlbatiku di fayee ko ay indemnité de logement maanaam indemnité yoo xam ne dëkkuwaaye taxoon ñu di leen ko jox journal bi ne yeneen agent nag amoon nañu ñaari salaire ca ministère de la santé journal bi ne Sabodala Gold moom la mu waroon a fay état moom la tegut ca yoon tey w di sulle or ba ba ko sax concession bu bees Dangote ak Sokosim moom yéene kaay bi ne loxo ci poos lanu leen jàpp ñuy sulli ay substance teguñu ko ci yoon journal bi ne keneen ku teguwut ci yoon it mooy maître Moussa Diop waaye it Bamba Fall meerub Medina bi yéene kaay na ne ay denrée ndax journal baa ngi leen tuddee fantôme te ne yoo yeleb ndimbal la jox booba jamono le réveil di ñu yëgal ne président Bassirou Diomaye Faye gannaaw ba mu joxee ndigalu nañu dakkal lépp luy liggéey bu amoon ci corniche ba santaane na woon itam ñu def lu ni mel ca mbuurkat ga nga xam ne yéene kaay bi ne dàllam la sol démb demal fa boppam xooli nañu caxat caxatee suuf sa séddoo ko ci seen biir ne xam ne am na maanaam fukki hectare ak ñett la ñu am ñeneen am fukk ñeneen am juróom mu ni loola yëpp lu ko benn nit di doyee te am ñeneen ñoo xam ne ñi ngi am jafe-jafey dëkkuwaay Bassirou Diomaye Faye ne lépp dafay dakk te li nangoo fii nag duñu ko séddoowaat ñun ñi ne ci nguur gi tey loola ñi ma àndal xam nanu ko askan wi ko yayoo lanu koy jox critique ne moom kay président Bassirou Diomaye Faye sulli mbooti Macky ak ñamu àndal ci wàllu wàllu suuf moom la xëyee démb dem mbuurkat yor yor bi ne président kay démb Thiès la xëy xoole boucherie foncière ba am ca mbuurkat na ko gaa yi Macky Sall ya seddoo yéenekaay bi ne président na ba xool nanu pàccoo na indignation maanaam naqarlu ba fu ñaawlu yem vox ba ñu def ca mbuurkat lu naqadi président Bassirou Diomaye Faye la moom ca boppam moo ko xamle mu ni am nañu fi dagg lu ñetti hectare ñeneen fukk ñeneen fanweer ñeneen juróom fukk njiitu réew mi ca boobale bi yéenekaay ne am na ci sax koo xam ne lu ëpp ñaar téeméeri ectare la am loola lu ko benn nit di doyee te am ñeneen ñoo xam ne ñu ngi dëkk fii ci bërëb bi amunu dëkkuwaay mu ne nag lii moom duma ko bàyyi mu sedd danañu ca dem ba sës rek lépp lu ci wari daanu ko ci def ngir joyentiwaat yëf yi fii delloowaat lépp ci yoon laas ne jomaay détaille le scandale de l'ancien régime di paccoo suuf ga am ca mbuurkat la soleil ne ay mbir yu jaaduwut ca lotissement ba it président teg na ca gët gannaaw ba mu fa wàccee démb ci lu kenn xaarutoon le soleil ne ba mu tegee loola gët ba nuppi jël na am loo xam ne dañu koy defandeegum fii ak ñuy xool nañuy joyante yëf ya bokk na ci dakkal lépp lu fay liggéey liggéeykat yi Sud Quotidien booba jamono ma nga ñuy xamal na leen ca ngoon nga jàppale journal ba ne moom seen anam gi ñuy dundee it yéene cabinet bëgg nañu ñu gën koo ñoŋal ñoŋal itam la ñuy fayeeku di salaire ya président Bassirou Diomaye Faye nag yéene cabinet jéem naa dalal seen xel ca la mu leen todd ñu des pale Vox Populi mi ñu yëgal ne général El Hadji Daouda Niang moom lañu fal délégué général au renseignement national Ousseynou kaay bi ne mooy ministre chef de cabinet bu président moom président la tribune gis ne mi janoo it ak accord de pêche yi meññee ci géej gi yéeni kaay bi ne dañu koo bazarde waa Europe loola it njiitu réew mi ñu ko ciy xaar ndax lépp tubaab yaay roñ yóbbu te lanuy fay réew mi tekkiwul dara xawtuwut dara du génn wal fajiri yéeni kaay bi di wal fa quotidien yu yeggee noona lakk ba fa amoon nañu luy tolloog juróomi téeméeri million

juróom ñu des ci làmb jig yéenekaay boobaa ak yeneen yépp yi xëyee ñu génnuk àdduna Gaston Mbengue yéenekaay yépp yi di ko delloo njukkal dikk it ci ñàkk gu metti gi génnuk àddunaam gi tekki ci axlu làmb ca woowale tiis lañuy tëjee ñaanal leen kenn la jàmm dig daje ëllëg incha allah